سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي نوغلين دي نيو دلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سوات نن جسين إميسيون دارجي نين كو باخو عمل رك جي أيو بيس بنيك نيو جي تير بنغ خمني موتو دو تزاودو سيغار نيو تولوان تنك دي جانغ ci bind bi wessu muy yi tim ak ay sunnaam tay nak nu fasiyene jang farata yi koor ak ay bismillah faslun li abdogla la fi siyaami ci koor mune dog bi da ci jangale lu jëm ci mbirum koor siyamuna sunu koor farata bila ziyadatin ci luddul ak dolen wala nuqsanin te du caagene ak wàññeen mu ne faratay koor ñaar la amul yokk amul wàññi ci boo ko tënkee ñaar rekk la ba ca njëkk niyatu naa mooy sunu yéene wa kafu naa ak sunu fegu an muftiraatin walis way koor yi li wajhi baaqin ngir jëmmi aji des ji te mooy sunu boroom mutaamin kuy aji lele bi tayyibaati ci way teya maanaam ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne moom mooy xéewale ñam yu teey yi yu neex yi faratay koor ñaar la muy yéene ak wattandiku lépp luy dog koor bu ñu nee yéene nag na nga xam ne yéene ji dafa war a doon yéene ju ràññiku te it ji dafa am waxtu buñ ne yéene ju ràññiku mooy su fekkee da woor bu dee ko wooru koo xam ne la dala war muy kooruk farata da ngay am yéene mu nekk ci sa yéene su fekkee it da amoon su fekkee lu mel ne fay la dangay am yéene fay su fekkee danga nga euh, loo xam ne la euh, kooru ngàtt nga la hmm, su boobaa ba tey da ngay am yéene euh, loolu da nga ko war a teewlu ci sa xol kon mënta ñàkk yéene ji doon yéene joo xam ne yéene ju ràññiku la ci misaal su fekkoon ne danga nga woor kooru ngàtt nga moom nga am yéene def ko maanaam kooru naafi la ngir yok say tuyaaba nga xamne koor go xamne wëru la nga dem ba ci digg bëccëg ba sa xel dem ci ne wëru koor wi jall amon na bis bo xamne war na ko fay comme que amon na bis bis bo xamne nak waron na ko fay Tema jël bis bi fétalé ko mu nekk bis boobu su boba lol du mëna nekk ndax bis bo bis boobu ngay wor da nga amon yene wor koorug nafila, muy koorug ngàtt nga waye amu won yene fay kon mën ta nekk kon la nga yéene rek lolo loolu loolu nga ci am kon faaw rek nga mu doon yéene joo xam ne yéene ju ràññiku la bu koor gu la war nga am yéene def ko bu dee koor ngàtt nga la nga am yéene def ko dafa am waxtu nag waxtu wi nag mooy guddi guddi nag boo ko déggee mooy li dale ci soxog jant bi muy ci timis ba fajar loolu mooy guddi gi bu la xasee rëcc rek su boobaa dootoo mën a yéene woor kon loolu mooy waxtoom nga xam ne su fekkoon ne koor la goo xam ne kooru ngàtt nga la nga ne ginnaaw suba de bëgg naa woor nga xëy suba fàtte ko ba ca guddi ga nga fàtte ko xëyaat ca ginnaaw suba ga sa xel doog cee dem su boobaa doo ne damay continuer woor déedéet doo doo mën a woor ndax amu woon yéene ca guddi ga nga woor su boobaa koor googu du mën a wér su fekkee ne nag kooru euh, farata la muy weeru koor Euh, te sart yi daje ci yow yi tax mu war la su boobaa euh, yéene ji rëcc na la waaye du tee da ngay bàyyi lekk bàyyi naan ak lépp loo xam ne tere nañ ko ku woor bu bis boobu jàllee nag euh, bu weer wa jàllee nga daal di fay bis boobu waaye doo mën a bis boobu du mën a wér ndax amoon yéene woor ko ca guddi ga kon waxtu wi da ci am solo bu la rëccee rek su boobaa koor ga du mën a wér ba tey su fekkee da ngay déngi déngi ba tey naan danaa woor wala du ma woor wala sax tey ci guddi gi lañ war a séentu weer wi yëgugoo ci dara kenn waxu la ne la feeñ na kenn waxu la ne la feeñut nga nga am nga xam ne yéene yéene ju dogg nga xam ne dogguwoo ci nga xam ne da ngay sikki sàkk ba tey boo xëyee suba ñu ne la weer wi feeñoon na doo mën a continuer bis boobu mu baax waaye nag danga nga wattandiku lépp loo xam ne da day dog koor waaye bis boobu da nga koy fay ndax yéene ji dogguwoo ci woon kon ñu ñu bàyyi ci xel ne yéene dafa am dafa am ñetti mooy lu da ciy dogu ba noppi mu doon yéene ju ràññiku ba noppi mu am waxtu woo xam ne moom lañ ko war a def bu la rëccee rek du baax su fekkee ne nag koor la boo xam ne toftale ko lu war la lu mel ne weeru koor nga xam ne amoo sañ-sañu woor tey jëlal suba nga xam ne farata la ci yow nga xam ne sart yi daje na ci yow ne farata la ci yow nga xam ne sa wér may na la ko te it mu kàllaf nga te jullit nga su boobaa euh, koor gu mel noonu nga xam ne toftale ko lu war la euh, ci misaal lañ ci lu mel ne weeru koor wala sax mu nekk koor goo xam ne euh, kooru kafaara la nga xam ne da nga koo da koo def mu nekk kafaara nga xam ne toftale ko lu war la su boobaa guddi gu njëkk ga mën nga cee yéene waale guddi ya ca des yëpp lu mel ne weeru koor guddi ga ca njëkk ñu ne tey la weer wi feeñ nga yéene woor weer wi nga xam ne yéene jooju rek doy na lu jar nga yeesalaat yéene ji bis bu nekk nga sàkkal ko yéene ju yees déedéet du ko jar lu dul ne nag dangaa dem ba ci digg ba ah yoon may la nga bañ a woor maanaam nga am ngàntul bañ a woor am sañ-sañu ñàkk woor lu mel ne nga tawat ba eh, tawat ji teelaa woor su boobaa boo wéeraat boo wéeraatee da ngay yeesalaat yéene nga xam ne guddi gi nga wéere rek guddi gi ah, bis bi ngay wéree rek guddi gi ci topp guddi googu da ngay yeesalaat yéene ji fas yéenee woor li des lépp waaw léegi nag su fekkee koor la goo xam ne nag koor koor goo xam ne nag am nga sañ-sañu tàqale ko nga xam ne man man am mën ngaa woor tey jëlal suba lu mel ne koorug naafi la su boobaa koor gu mel noonu guddi gu ju nekk danga koy sàkkal yéene ju yees moom guddi gu ju nekk da nga koy teewlu yéene ji kon loolu mooy lu jëm ci yéene ji ñaareel bi kon yéene ji nag moom mooy farata bu njëkk bi ñaareel bi mooy moytu lépp luy dog koor mooy ñaareelu farata bi nga def ko nga def nga moytu ko li dalee ci fajar ba fi euh, fi jant bi sowee loolu mooy ñaareelu farata bi yii dog koor nag bari na lu ci mel ne lekk day yàq koor naan day yàq koor wala sëy muy rapport sexuel ak tux ak lépp loo xam ne rekk nit ki dana ko jëfandikoo ba mu àgg ba ca biir ba bu dee lu wow la bu dee lu tooy la nag bu xasee àgg ba ca bëli rek yàq koor ga yàqu na wala nit ki génne mani yu ci tayeef muy ci ak yëkk waaye su fekkee nag dafa nelaw daal di génn su boobaa bi yàq koor gi waaye su fekkee moom moo ko génnee bu fekkee moo ko tey day kafaara bu fekkee teyu ko nag day fay bis boobu subaa koor googu day daal di yàqu ba tey mathiyu mathiyu leeraloon nañ ko ci bind yu weesu ba tey boo ko génnee ci bëccëgu weeru koor ba tey day yàq sa koor euh, loolu ñu wax nag ci lekk ak naan ah, na nga xam ne lépp loo xam ne rek jaar na ci jëmmiñ doomi aadama ci moo xam ci bàkkanam la jaare moo xam fu mën a jaare rek moo xam ci gémmiñ gi la boo xasee ba àgg ba ca biir bi biir mbàq ga koor ga de daal di yàqu su fekkee nag lu tooy la bu àggee ca bëli ga rek koor ga yàqu na kon loolu mooy ñaareelu farata bi kon buñ la laajee ne la ah, faratay ñaata la neel ñaar la benn bi mooy yéene ñaareel bi mooy moytu lépp loo xam ne day dog koor ñu ñëw ci sunna yi mas noonuhu la ñu sunnaalam salaasatu ñett la indal labibu fa aji xellu ja sunnay koor ñett la taajilu naa mooy sunu gaawe alfutuura dogga min baadil xuroo bi ci ginnaaw soxuk jant bi wastaani ñaareel bi taxiiru suhuri mooy yeex a xëdd laylan ci guddi saalisuha aji ñetteel seen maanaam ñetteel bi ci sunna yi kaful lisaani mooy fekk làmmiñ wa xawlan ci wax ju amul njariñ sunnay koor ñett la ba ci njëkk mooy gaaw a dog ginnaaw bu jant bi sowee bu jant bi sowee rek nga xam waxtu bul fa di def dara dogal maanaam euh, gaaw a dog dafa bokk ci sunna yi su fekkee danga nga da nga koo yeexee rek nga xam ne da nga moo xam yaa ko moo xam lu mel ne moo xam da xër ne xaaral ma dem ba gee su boobaa def nga loo xam ne santuñu la ko te li nga def du sunna bidaa la kon ga euh, euh, bi njëkk mooy gaaw dog ginnaaw bu jotee léegi su fekkee da ngay sikki sàkk ndax ah, dog jot na wala jotul lañ la digal mooy bàyyil ba mu leer la nga soog a dog loolu moom mënta ñàkk ba mu leer la rek ne waxtu wi jot na nga soog a dog su fekkee da ngay sikki sàkka ba ba daal di dog nga xam ne da sikki sàkka ñu ne la bàyyil ba leer la nga nga dem dog te tey ko su boobaa li fekk amaatoo ci lu leer ne ba ngay woor ba ba ngay dog waxtu wi nga doon dogee ah, dog jotoon na li fekk amaatoo ci lu leer rek su boobaa bis boobu da ngay fay boo ci amaatee lu leer rek ñu ne la kat. waxtu nga doge won fekk na dog jotna na su boba bis boobu dogo ko fay waaye su fekke ci sikki sak googu nga doge te amato julu leer rek bis boobu dang koy fay kon lolu moy ah, sunna bi njëkk ci wéru koor muy wala sax koor rek manam wor mo xam ngat nga la mo xam lu mën doon ah, sunna boobu moy moy sunna bi njëkk bi ci wàññi bi ñu sunna bi moy yeexa xet jappal ne fu guddigi xaja rek man nga xet xëdd maanaam mos dara loo xam ne ah, danga nga koy dëgërloo tuuti moo bu la neexee mu bari bu la neexee it du jar muy bari waaye lekk lu yam baax na ci waaw ñaareel bi mooy yéex a xëdd yéex xëdd nag maanaam guddi gi xaajee rek xëdd jot na waaye nga yeexe ko ba nga xam ne da ngay noppi rek toog lu toog juróom-ñetti minutes wala fukki minutes wala fukki minutes ak minutes ak juróom ah, ñu daal di ah, noddu fajar nga xam ne. fi ngay bàyyee lekk ak naan day jege fajar loolu moom dañ ko loolu sunna la bëgguñu nga teel a xëdd lool waaw loolu sunna ñaareel bi mooy yéex a xëdd ñetteel bi nag mooy fekk saw làmmiñ ci wax ju amul njariñ dañoo jëlee la nag wax joo xamee dañ ko tere muy wax ju ñaaw muy jëw wala rambaaj wala seere lu dëgg wala yu demee noonu lépp loo xam ne tere nañ ko làmmiñ ci lu araam loolu moom jëlale nañ ko waaye nag Ah, fekk saw làmmiñ ci wax ju amul njariñ maanaam wax joo xam ne amalul la benn njariñ nga xam ne moo xam ay kaf la moo xam lu mën a doon wax joo xam ne amalul la njariñ nga téye ci saw làmmiñ ci boo uh, wooree loolu moom sunna la kon nañ ko taamoo woon rek njëkk ngay woor noonu lañ ko gën a soppee ci weeru koor kon buñ la laajee ne la sunnay koor ñaata la neel ñett la ba ca njëkk mooy yeexat uh, gaaw a dog ginnaaw bu dog jotee ñaareel bi mooy yéex a xëdd maanaam sa diggante fajar daal xëdd jot nga xam ne sa diggante ak moom moo xam juróom-ñetti minute la wala fukki minute ak juróom ñetteel bi mooy fekk saw làmmiñ maanaam téyal saw làmmiñ ci wax ju amul njariñ kon mbokk yi ñu jox leen dig daje ba aljuma bii di ñëw incha allah ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci laay dooree di way daara ramaani moo dikki jox ngëneel sëriñ daara ray mi moo taxa jóg man di dem daara yowmal qiyaamate ñëppay xam lu dib daara